dara papa ministère ngi fi téer ngi fi nga sob na da dugg ci làmb bërse boobu nga war a teeyee tey tey ci ndox lañ ko xam maa mën maa ëpp doole grand mérite gi ma def déggoo ma de boo fa ñëwoon sa xaalis bu waddee sax ñeme woo koo for tëddee nelaw yow xam nga ni doo daan boo bëree déggoo ma ma daan la boo xeexee ma duma la waaw daan la góomu tànk laa lay def ni ko téppee dagg ko victoire rek mais Alboury ma waxal la leen bëree kase maa la dàq bëree yaa ma dàq bëree ñaar téeméeri yoon yaa ma dàq xeex mais maa lay daan. doo daan kenn bravo laa lay wax. waxal lu la neex. arène nationale bi. arène nationale loo fi liggéeyul. Mhm. du la fi fekk si biir géew. yàlla bu liggéey bi rey ma damaa liggéey pare. li ma war a pare yàlla xam non. jara mais gars yi nekk fii xam nañu liggéey. Saint-Louis du Sénégal waa Ndar Géej am ngeen bës bu mag mbokk yi le drapeau du chef de l'État son excellence monsieur Macky Sall 23e édition du 12 au 14 mai 2023 foofee ca Ndar 14 régions nag ñoom ñooy présenté réew mi waaye nag mbokk am na benn nouveauté bu bees bu ci am muy intégration de la petite catégorie mbokk ci yooyu les bés di am foofee ca Ndar dinañu tànn nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy les meilleurs lutteurs en lutte sans frappe loolu yëpp nag ngeen mën ko am en direct ci Eric Favre TV mu ànd ci nag ak jàmba combat boisson énergétique boobu waaye nag mbokk yi lépp CNG de lutte bi moo ko coiffé. asalaamaaleykum mbokk yéen ñu ñuy suivre seen site internet luttetv.com ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare tey mercredi 10 mai 2023 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay comme ni ngeen ko amee chaque jour ñu ci ànd ak waa Mbir Kilaan FM ca Saloum di ci ànd ak waa Vice FM ca Gambie maa ngi nuyu DJ Mo di nuyu Babacar Sarr. di nuyu seen auditeurs yëpp waaye di nuyu suñu père Ndonga Cissé suñu père Edi depuis Gàmbi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziar di jàmm. ñu ñëw ci journal sunu làmb ak journalu record commencé ko ci journal bi nga xamante ni moom moo di journalu sunu làmb mu xëy fësal combat bi nga xamante ni moom moo war a am dimanche 21 mai 2023 fële ci arène nationale war a dox ci diggante Forza bu écurie Ndakaaru ak ki nga xamante ni moom moo di Franc jàmbaar wér seen académique mu mel ni journal sunu làmb xëy na. dalal micro am kii nga xamante ni moom moo di Pape Diagne Seras Pape Diagne Seras nag xëy na def jàngat ci la combat mu mel ni Pape Diagne jàpp na ni kii di Franc moom am na adversaire boo xamante ni mosu koo am ci li nga xamante ne moom moo di carrière la nga xamante ne moo tax mu xono boo duggee ci journal sunu làmb di nga ndax jàpp na ne kii nga xamante ne moom moo di Forza nekkul nit instant bi ñii la waroon a bëreel maanaam fa toog mooy fa ñoom Balla Gaye fa mu waroon toog heure mooy fa ñoom Balla Gaye toog ñoom Gris Bordeaux Bombardier ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy Modou Lo ñooñu la bokkal li nga xamante ne mooy fa ñu war a toog di lekk waaye pas Franc moo tax mu jàpp ni daal Franc instant bi am na adversaire boo xamante ne musu ko am nee na combat bi nag koy fàttali combat bi nga xamante ne moo waroon a dox ci diggante Sa moo doxoon ci diggante Sa Thiès ak ki nga xamante ne moom moo di Reug Reug waaye nag jàpp na ni moom Franc nekk na mbër boo xamante ne du ko miinal dara ndax ko xamante ne def na onze combat am ci onze victoire ku ne war nga ko mën a daan waaye naan moom moom moom Pape Diagne Seras jàpp na ne combat bi combat capital la ci ñoom ñaari mbër yëpp ndax ku ci nekk rek am na foo xamante ne war nga faa egg ci làmb nee na nag ki nga xamante ne moom moo daan moom moo gagné combat boobu noonu nee na kooku dina tegaat beneen jéego ci làmb moom Pape Diagne Seras moo xëy def jàngat bu am solo boobu noonu ci boobu boobule combat beneen combat bi war a dox ci diggante mbay guy gi ak nga xamante ne moom moo di armée journal sun làmb tàllal na ci micro kii nga xamante moom moo di père Abdou Bakhoum mu ñu wax ne daal doole yi ci ñaari combat yi ci combat noonu war a dox ci diggante mbay guy gi ak kii nga xamante ni moom moo di moom moo di armée moom jàpp na ni kii nga xamante ni moom moo di mbay guy gi moom mooy favori ci boobu boobule combat ndax jàpp na ni. moom moo ëpp doole ki nga xamante ni moom moo di armée nee na ki nga xamante ne moom mooy armée tamit war naa privilégié li nga xamante ni moom mooy xeex bi digganteem ak ki nga xamante ni moom moo di mbay guy gi loolu mi ngi war a am le di le 20 mai incha allah rabbi arène nationale ñu ci ànd borom Kajoor production dañuy des ba léegi rek ci journal sunu làmb ak li war a am le 18 mai war a dox ci diggante Alboury xale rimbi rimbi war a bëri war a bëri ak ki nga xamante ne moom moo di Diarra 2 mu mel ni Alboury nag kon retour am gars yi ñoo ngi koy xaar fa la nga xamante ne moom moo di arène nationale ñu ci ànd ak Teranga production Sidi Djib Sène ñu des ba léegi ci journal sunu làmb ak duel des lébu rendez-vous bi le 23 juillet la war a dox ci diggante Diam Terry ak ki nga xamante ni moom moo di Ahmed Deme journal sunu làmb ñëwaat na di ñu fàttali boobu le combat le 23 juillet la ñu ci ànd ak ki nga xamante ni moom moo di Jander production ñaari ñi bëri woon doxoon ci diggante Boulal ak Pogala journal suñu làmb ñëw na ci Père Max Mbargane nag mi nga xamante moom moo di manager bu laal jàpp nañ daal la ñu dagg kii nga xamante mooy bu laal bari na lool lool lool lool lool lool ndax lu tollo cent quatre-vingt-neuf mille francs dagg nañ ko moom bu laal mu dese fële nga xamante ne moom moo di CNG onze mille francs la fa dese ci li nga xamante ne moom moo nekkoon reliquat ñu des ba léegi rek ci journal sunu làmb ak Pokola moom koy moom doon jàmmaar loolu journal bi samp na ab laaj ci moom di wax ne quel adversaire pour ki nga xamante ne moom moo di Pokola Balde journal sunu làmb ba léegi rek ñëw ci lii xewoon fa la nga xamante ne moom moo di palais VIP yëpp dafa mel ni teewe woon nañ ndaje bi nga xamante ne président Macky Sall dajale woon na ko waa axlu làmb waaye kii nga xamante ne moom moo di Ama moom teewewu ko waaye Siteu bu Lansar tamit ndaje boobu teewewu ko woon maam Góor ngi Njaay xam ngeen ko ancien gloire l'enfant chéri de ndakaaru wala de Dakar moom tamit teewu woon na boobu ndaje rëg-rëg ak ki nga xamante ne moom moo di bombar Bombardier teewuñ wuñ boobu ndaje journal sunu làmb wax wax nañu li waral ñoom teewuñ ko kii di Reug Reug moment bi ñu waxee ak yéen ma nga xam fële nga xamante ne wala boog ma nga ci diggante Dubai ak Singapour di nekk di waajal combat MMA am Bombardier tamit ku ne xam na ne instant bi ma nga fële nga xamante ni moom moo di France keroog ba Reug Reug demee dafa mel ni daa topp ci ay tànkam dem fële nga xamante ni moom moo di France mu mel ni dellu si Matar Ba ci ministère des sports monde de la lutte ñu ngi koy réclamer journal sunu làmb moo ngi koy wax yaawu jaal tamit yëngaloon na fole nga xamante ni moom moo di arène nationale wala boog moom moo di palais de la république keroog ba nga xamante ne maître euh, président Macky Sall dalal na ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa axlu làmb ñu des ba léegi rek ci journal sunu làmb ci làmb ji nga xamante ne amoon na ci diggante caatu limousine ak building mu mel ni caatu limousine moom moom moo daan keroog ki nga xamante ne moom moo di limousine fële nga xamante ne moom moo di Thiès ñu àndoon ci ak ki nga xamante ni moom moo di Sidi Jaxate borom Jaxate kaba yére ñu jóge ci journalu solo laamu ñëw ci journalu record mu mel ni moom dafa mel ni def na bilan def ak mesures yi nga xamante ni président Macky jël na ko pour li nga xamante ni moom moo di làmb wax nañ ci arène nationale bi mu mel ni tamit jàppale cent cinquante deux cent cinquante deux écrits ak ay école de lutte loolu journal bi ñëw na ci waaye nag cinq cent millions yi nga xamante ne président Macky jël na ko daal di koy bëgg bëgg koo teg ci kaw li nga xamante ne moom moo di table bi pour jàppale li nga xamante ne moom moo di promoteur bi promoteur yi 330 postes pour li nga xamante ne moom moo di mbëri ci cadre xëyu ndaw ñi ñu des ba léegi rek bi nga xamante ne moom Assane Walu Gueye def na ko ci 20 millions yi nga xamante ne. moom def na ko ci drapeau chef de l'état bi chaque année ak yeneen ak yeneen ba ci Isabelle Samb mi nga xamante ne chargé nañ ko foofu am mission loolu lañu leen andiloon mbokk yi bàyyi xel Lutte TV point com foo mën a nekk ci àdduna ñu ngi leen di bégg bu baax a leen ziare di waa groupe Lutte TV ñoom ñëpp tuuti yaay om Omzo bu Garga Serigne Diour bu Oussoudu Cheikh Bass Kër Massar ban Pape Demba Kër Massar ah di nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy Bada bu Serigne Ndiaye Daabu Jëm Tiri ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare Bada Fass ah bëgg nañ leen bu baax a baax <clears throat> di nuyu tamit ki nga xamante ni moom mooy mu Ndiaye directeur Siri Madeleine doomu nday Liri Diane di nuyu Mansour Kassé Mafal Mor Ndiaye ak Afia Mafal ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëgg bu baax ak Ablaye Sarr di nuyu Abdou Tall bu xarañ loo ah doomu nday Amdi Moustapha di nuyu petit promoteur borom la 15 juillet doomu nday Galso Fall Fall Touba maa ngi leen di bëgg bu baax a baax a baax di leen ziare. waaye nag di nuyu tamit ki nga xamante ni moom mooy Ndoore borom top 5 fitness top 5 musculation. comme ni ma ko waxee rek parce que jaaree la nekk terrain Ndiayène yéen ñi commentaire di bàyyi xel luttetv.com foo gën a abonné tey bés bi bu defee vidéo bu dugg rek même bu leen fekkoon ci leneen da ngeen koy daal di am di kontaan yéen di leen jox rendez-vous suba incha allahu rabbi. dara papa ministère yi fi téere yi fi. Ah. nga sob dugg ci làmb. bërse nga war a téye. kay ci ndox lañ ko xam maa mën maa ëpp doole grand mérite gi ma def déggoo ma de boo fa ñëwoon sa xaalis bu waddee sax ñeme woo koo for tëddee yow xam nga ni doo daan boo bëree déggoo ma de daan la boo xeexee ma duma la waaw daan la góomu tànk laa lay def ni ko téppee dagg ko victoire rek mais Alboury ma waxal la leen bëree bëree kase maa la dàq bëre téeméeri yoon yaa ma dàq xeex mais maa lay daan doo daan kenn garaaw laa lay wax waxal lu la neex. arène nationale bi. arène nationale loo fi liggéeyul. Mhm. du la fi fekk si biir géew. yàlla bu liggéey bi rey ma damaa liggéey pare. li ma a pare yàlla jara mais gars yi nekk fii xam liggéey. saint du Sénégal waa Ndar ci am ngeen bës bu mag mbokk yi le drapeau du chef de l'État son excellence monsieur Macky Sall 23 édition du 12 au 14 mai 2023 foofee ca Ndar 14 régions nag ñoom ñooy présenté réew waaye nag mbokk yi am na benn nouveauté bu bees bu ci am mooy intégration de la petite catégorie mbokk yi ci yooyu les bés di am foofee ca Ndar ñu tànn nag ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy les meilleurs lutteurs en lutte sans frappe loolu yëpp nag ngeen mën koo am en direct ci Eric Favre TV mu ànd ci nag ak jàmbaar boisson énergétique boobu waaye nag mbokk yi lépp CNG de lutte bi moo ko coiffé